Mm-hmm. am taxawaay bi mu nekk euh, parti bu nga xamante ni dañuy am en même temps dévouement mm-hmm. engagement mm-hmm. citoyenneté mais ak benn benn croyance ci seen benn canevas bu nu tracé bu nu gëm soo leen di xool yoru yorunu matériel euh, logistique bu am doole bu war a mën a tax ñu synchroniser toute la population nationale en en un temps record mm -hmm. mais par ñoom canaux de communication mm -hmm. leur organisation ils parviennent à faire des choses yu nga xamante ni mm-hmm. Mm-hmm. am na fi ay parti yu mag ak ay organisation yu mag yu fi mm-hmm. nekk mënuñu am euh, mënuñu am taxawaay boobu donc tey bu ñuy euh, bu nuy bu ñuy def seen anniversaire su ma jumulee vingt quatrième xam vingt cinquième année depuis quatre vingt dix sept ou quatre vingt seize ñu nekk ci constant bii nii constat euh, constance ñu am constance bii ba fii ñu toll nii dalay dalay wóor nii sànq ñi ngi wax ne ndaw yi am na ñu si amul orientation. Mhm. mais ñoom seen côté. Mhm. am nañ benn orientation bu nga xamante ni moo leen di guider. Mhm. certes am na ñooy leen di eh, caricature caricaturer. si ñii dañoo violent. dañuy persécuter dañuy seen discours dafa dëgër. seen attaque dafa dëgër. mais fi réew mi toll bu fekkoon Serigne Moustapha daf ko wàcc. man mën naa nangu wax jooju noonu. parce que daf ko def ak Abdou Diouf daf ko ak Abdoulaye Wade. kon su ko defee ak Macky Sall du nekk du nekk gulet kenn du mhm. ni lii dafa bees mhm. mais position bi mu taxawee moom mooy man ci peuple bi laay far mhm. quel que soit alpha bu Abdou doxalee yoon ma ànd ak Abdou Abdou gisewu ko noonu mu jàpp ko tëj ko kaso bu Abdoulaye Wade doxalewul noonu ma contré ko su Macky Sall aussi doxalewul noonu aussi ma contre mhm. ragal naa ne aussi ëllëg bu beneen président ñëwee bu deful lu mu war a defaat aussi mhm. même résistance bi la am parce que wane nañ ko trois fois kon mhm. pourquoi pas ñu xaar leen aussi même bu dee présent Ousmane Sonko la wala beneen président mu dem ba ci biir mu dérivé nga gisaat encore beneen am na am na li nga wax sax lu intéressant mooy ñoom am nañu seen organisation bopp ba song stade di fa def euh, meeting te peut-être publicité bi gisoo ko ci benn télé te leer na leen na ñoom ah. euh, stade ba dina fees tey. non nit ñi duñ dugg. Mhm. nit ñi duñ dugg amul bari. Euh, esplanade bi sax boo fa demee da nga fay fekk da fay fekk ci ay nit. Mhm. ku fa ku fa ku fa trois heures wala deux heures fekkulee doo dugg. Mhm. donc lan moo nekk derrière ça. loolu il faut que ñu xalaat ni pourquoi cette force mu am doole noonu. def nañ élection présidentielle. dem nañ parrainage éliminé nañ ñu bari. cinq candidats ñoo demoon. bon est-ce que jëlunu quatrième mhm. derrière Idriss Seck ak Sonko mhm. quatrième au mhm. présidentiel yi passé euh, là ça pose ça pousse à réfléchir si ñoom ñu jot a bàyyi xel lan ci axe politique bi ñu jël nii gis naa tamit ñu def benn euh, euh, je sais pas ndax c'est avéré mais gars di waxtaanee benn coalition pure parce que te yaakaar naa ne loolu moom si c'est si c'est devenu réalité dina dina faire feu. waaw mhm. parce que ñoom ñaar am na lu ñu bokk mooy ñoom ñoo bokk fit. Mhm. pur Pastef seen jeunesse bi wala ñoom ñaar ñëpp. sax booy xool d'abord li leen boole li leen nuroole à part la couleur verte boobu noonu. li leen mhm. boole. mooy euh, fit. am na dévouement am na engagement am nañ fit gu nekk ci ñoom bu nga xamante ni bu fit ànd xel rek. mën nañ def lu bari. lu bari sax. mën nañ def sax lu nu foogul woon. waaw mais fit kaset doyul. Mhm. xam-xam kaset doyul. Mhm. mais day ànd ak pexe si mhm. mais moom Ousmane Sonko bi ju <laughs> yaakaar naa ne euh, nañu jël sunu temps waxtaanee peut-être qu'est-ce qui se passe foofule ca euh, stade Amadou Barry. Ousmane Sonko gis nañu semaine bi moom sax dinañ waxtaan ci moom lu bëri mais occasion bi nga xamante ne saisir na ko. pour dem tey fekk ji ñoo le nga xamante ne ñoo bokk. waa PUR. Mhm. Euh, c'est à saluer. Ouais. normalement. Mhm. que ñoo ànd. Mhm. dafa bokk ndoo coalition Yewwi Askan Wi. te ba tey sëñ Moustapha euh, mu am vis-à-vis de Ousmane Sonko teggeekuwul. changé wul changé wul donc euh, c'est normal que Ousmane Sonko aussi feddali coloré. su sëñ Moustapha ayee wala mu xewle aussi Ousmane dafa war a mën a dem dooleel ko taxawu ko yokk mbooloo. lu ñu àndaat après gën a xool. séance yi ñëw nag mais Arona am na benn discours bi nga xamante ne. Mhm. Euh, gaañ yi jël nañ ko temps itam mooy nii paye nii transformé mooy jënduñ ñu fayuñ ñu li gaa xale yi sax dem nañ ci ba naan euh, suur nañu añ waa Guédiawaye lañ doon wax soo koo ñëw. dem nañu tamit ba ci ku dee sa yaay juraat. Mhm. mais euh, ni ñu demee ba léegi politique. peut-être gënoon nañu tàmm di gis Sénégal côté politique euh, dañu lay jox basin jox la sandwich jox la ndox jox la yooyu noonu pour nga ñëw mais bu ñu demee ba léegi bàkku gi ci euh, kenn joxuñu dara la doon. Mhm. avancement la wala dafay indi wane manquement yi nga xamante ne sunu politique amoon na ko bu njëkk ba. ñaar yëpp la manquement yi wane na ko mais avancement aussi am na. Mhm. parce que bu njëkk politique t-shirt la woon. Vax mhm. Lagos. bu am effigie candidat bi. ak mille ay 2000 mille 3000. Mhm. mille ak guerre des pancartes. waaw bu ñu ñëwee taxaw ku ne yore sa pancarte. bëgg a wane sa leader wane sa leader tingoom sa leader mhm. mu jëkk kaw. Mhm. xeex am dóorante am. léegi éveil citoyen bi. ak euh, citoyenneté. patriotisme bi nekk ci population sénégalaise en majorité population africaine bi. moo doy waar moo romb suñu njiit ñoom ñu ngi ñuy calculer peut-être yi ñi ngi xaar jeunesse bi ci benn stade. Mhm. benn niveau ndekete boo yi romb na niveau boobu noonu. Mhm. ñi ngi ci niveau bu gën a gaawee bu gën a kaawee ñoom fu ñu ko xalaatewul fu ñu ko foogewul. Mhm. tey bu demee ba ay jigéen ay mag. di engagé wu. di def ay actes citoyens di yëkkati seen xaalis. di këpp seen cin. di tayle seen kër. di dem di fekk ji ay leader. di wax ak ñoom pour. liy jëmale réew mi kanam. Mhm. amaana dix ans ci ginnaaw wala vingt ans ci ginnaaw boo leen waxee ñu la ñoom ñëpp a yam. Mhm. man rayelu kenn. <laughs> xeexlu kenn <laughs> sa buntu kër buy taa man sama yoon nekk ci. mais léegi ils se mhm. rendu compte que politique bi c' est pas une affaire individuelle. c' est une affaire collective. que yow li nga toog di ko seetaan. defoo ci sa tànk xaroo sa tànk tooy. ëllëg ci biir moom mooy ràmb fekk la sa biir kër. maintenant motivation boobu noonu moo ba. fi le problème n'est plus sénégalais mais c'est un problème africain. Mm c'est un problème africain et, et nos dirigeants ils ont le droit wala ils ont le devoir de s'adapter parce que li nga wax ne peuple bi wala population bi waruñoo raw vraiment ñi nga xamante ne ñoo ñuy diriger parce que boo gisee peut-être côté léegi euh, mun nañu jël l'exemple du PUR. Euh, massification bi ñu def wala mbooloo mi ñu dajale te publicité yi jaarul télé. Mhm. jaarul rajo nga war a xam ne am na beneen canevas yi nga xamante ne ñu ngi koy utiliser pour jaarale fa seen i. Mhm. Euh, information wala seen i. Euh, propagande si ah. je peux l'appeler comme ça mhm. mais bu dee ñoom demuñu ba ci dem ba peut-être di tëj ay signalu télé mhm. di tëj ay signalu rajo mhm. di di di tere ay journalistes suñu wax est-ce que ñun <laughs> peuple bi raw ñu ñu ñuy diriger ñun si effectivement peuple bi moo raw dirigeant yi <laughs> effectivement neexut a dégg mais loolu moo am <laughs> suñu dirigeant yi danoo archaïque par rapport au système bi daw actuellement dans le monde -hmm. en Afrique en particulier au Sénégal. Mm bon raw bi fi ma koy waxee dafa am nu koy déggee. pas mhm. pas raw d'une manière générale ci ci mhm. doxalin. Mhm. ñoom tollinu jamono tollinu jamono. ñoom ils sont conscients de la réalité actuelle. de ce qui se passe. mais demuñu woon anticiper par exemple nga taxaw 2016 nga def prospection nga ne en 2020 situation bi dina toll fii. nga jiitu ko. peuple bi ak dirigeants yi danoo tolloondoo en même temps ci fee yi. xamoon na ko. Mhm. mais jugu ci. Mhm. dafa seetaan ba tey mu yegg si fii mu toll tey. Mhm. maintenant tout le monde va subir. le peuple comme l'État. parce que yegg si nañ fu nga xamante ni kilifteef gi waroon teg les premiers pas. taxaw pour mën a gàttandu njaboot googu noonu. ba du dugg fu nga xamante ni moom du ko fa mën a fekk. léegi seetaan na ba njaboot gi dugg ci guuta. wala book mu dugg ci vitesse wala mu nekk ci yoon bu nga xamante ni moom. mënu ko anticiper. mënutu ko mënutu ko dindi. parce que li Maliens yi def. li Maliens yi def enchaîné deux fois coup d'état mhm. ci temps record mhm. jël fi président indi fi militaire ba pare jiital ko mhm. topp ko te avant loolu Maliens yi ils se cherchaient gisuñu woon seen bopp imam lan dem jëli imam dikko jiital ko imam bi mu demee ba xam ni moom fii la mën a yem mu taxaw ñu def transition ñu teg euh, baa ndaw baa ndaw ñu dem ni xam ne du moom ñu jëlewaat ko fa ni Assimi mhm. Assimi ñëw yeggali mhm. peuple boobu noonu def revendication boobu noonu pour chasser les les militaires et les soldats français mhm. taxaw réclamer benn patriotisme ak benn nationalité ñoom suñu dirigeants yi ils pensent pas loolu nekkul ci xelu sénégalais <laughs> mais est-ce que <laughs> est que jàppuñ ne sénégalais yi peut-être fit bu malien yi am bay osé di def yenn Euh, initiative yi je dirais pas coup d'état wala yooyu noonu. est-ce que jàppuñ ne comme Sénégal ñun aubaine lañ ci côté démocratie dañuy bàkk ci mbirum démocratie pays démocrate affaire yooyu noonu. Mhm. moo tax il se il dorme sur leur laurier. état bi mooy dormir. moo jàpp ni peuple am dafa passif ba tey. dëgg la mais révolution dafa bëri ay façon dafa am révolution boo xamante ni c'est physique c'est militaire. Mhm. mais am na ci révolution mentale. Mhm. Sénégalais yi seen révolution yëpp la plupart ay révolution mentale la xam nga mm-hmm. tey ñu jël mu tay mu tombeek euh, bisu Moustarchidine diini mm-hmm. révolution bi ñu def c'est c'est mental mm-hmm. cest à que ci xalaat ci xam-xam la sëñ Moustapha apposé benn idéologie teg fexe ba absorbé ko jeunesse boobu noonu ba mu nekk ci ñoom ba ñoom ñu am benn élan de patriotisme bu nekk ci ñoom ak benn gëm-gëm bu nga xamante ni bu sëñ Moustapha ne woon nii Mhm. ñoom ñëpp ñu dem fekk ci ko ci loolu. dëgg ça veut dire que tey état état du Sénégal seetaan na population mhm. ba ay population ba population bi yegg na fu nga xamante ni tey. Mhm. mbedd mi gañe na ko. moom état bi amatul accès ci njabootam. mbedd bi mooy décider c' est la rue actuellement ki commence à décider. et la rue commence à imposer sa force. ci kaw état du Sénégal. loolu mal Maliens yi def Burkinabé yi def ko. Nigériens yi dinañ ko def. Tchadiens yi def nañ ko. Guinéens yi def nañ ko. mais on peut pas Gambien dinañ ko def. Mhm. suupa def nañ ko sax dafa dafa réussir danoo xaw a hésité. Mhm. Ivoiriens yi dinañ ko def. Mhm. Togolais Béninois Burkinabé. tous les huit pays de l'UEMOA. ak les quatorze pays de la zone franc yi nekk euh, Afrique. centrale ak Afrique de l'Ouest. vont se révolter. maintenant révolte boobu noonu sénégalais bi bu defee nii. ñu jàpp nii le sénégalais xamul lu xew. c'est parce que le sénégalais vient au dernier moment. pas au dernier moment en tant que dernier. Mhm. mais en tant que chef. les élèves nettoyer la classe. Mhm. le prof va venir. maintenant les sénégalais ñoom ñooy jouer rôle boobu noonu parce que boo xoolee la France ni mu ni mu ni mu joxee gëdd. Mhm. Sénégal ni mu yëgee Sénégal ni mu faalee Sénégal. nga war a xam ni kon Sénégal mooy base mooy wàcc waayam booy voler booy atterrir il faut nga am foo wàcc. il faut nga am foo dal. Sénégal mooy seen daluwaay. donc ils n'ont pas intérêt que ce Mm-hmm. les les les les prémices. Mm-hmm. wala mu joxe les premiers exemples. il faut mm-hmm. ñu appesantir ko calmer ko. mais pendant bi ñuy calmer kii kii xam na li muy def ba pare mi ngi taxaw di leen xaar. day xaar ñee def li ñuy def rek. le cercle va se fermer va se retourner sur Dakar parce que Dakar tout le temps été la capitale de l'Afrique de l'Afrique occidentale de l'Afrique française et la capitale même de l'Afrique entière. biñ ci temps wu esclavage temps wu colonisation. Mhm. af Dakar lañ doon duggee. Mhm. du hasard. Mhm. Dakar lañ doon génnee. du hasard. Dakar nekk na fi capitale Afrique. nekk na fi capitale Afrique francophone. nekk na fi euh, euh, capitale Afrique noire nekk na fi capitale Afrique euh, de l'Ouest. kon donc toujours rôle boobu moo sa joué. rôle boobu noonu bu nu xalaat après quatre cent ans wala après cinq cent ans ñu jàpp ni. Mhm. les sénégalais vont croiser les bras toog di seetaan que ils vont pas participer. Mhm. si ils vont mhm. réellement participer. mais l'heure la ñuy xaar. te loolu noonu moom la lay wax léegi mooy état bi mi ngi mi ngi seetaan. mais mais par rapport ak sa sa discours euh, Arouna. dégloo nii seetaan keroog euh, conférence de presse su leaderu yi. gis peut-être Farba Ngom le discours qu'il a tenu Mame Mbaye Niang euh, le ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour mhm. discours yi ñu tenir ak yow li ngay wax nii dafa mel ni yàlla ak yàlla mhm. parce que parce que parce que yow li ngay wax tu tu tu parles de la mentalité des gens mhm. euh, opposition bi mais mise bi mu am peut-être ci rue bi mbedd bi mentalité jeunes yi niñ nekkee di changer. Mm-hmm. mais par rapport ak ñoom seen conférence de presse keroog ça va ñu dugg ci l' actualité Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais dafa mel ni yàlla ak yàlla wala yow yaa xamul li xew. <laughs> wala wala wala ñoom ñoo xamul li xew wala kat boo nekk en avance par rapport ak sa borom. dèjà ñoom mm-hmm. ñenn ñi xamuñu lu xew. ñeneen ñi xam nañ lu xew mais bëgguñu wax li xew. parce que du leen arranger. gis nga ce vent là va nettoyer. tout ce qui n'est pas dedans. Mm-hmm. dedans nag mooy patriotisme. Mm-hmm. gis nga le mot patriotisme bu ñu wax c'est pas que on est pro Sonko. Mm-hmm. on est on est dans Pastef. pour réclamer. am na fi yeneen parti yu tudd yu am la mot patriote de. xali Ahmed Khalifa Niass am na ko fi jiitu Youssoufa Mbodj APM alliance patriotique du millénium am na fi euh, donc le mot patriotisme boobu noonu bi Donald Trump doon doon doon doon wax africain yi à tout ñu considéré ko comme benn fou benn dof. Mhm. ni yëgul lu xew nangam sangam mu naan africain yi vous avez tout. Mhm. il suffit juste que ngeen booloo am fulla ak fayda. Mhm. Poutine di ko répété à chaque fois. ni dajaloo leen am ngeen lépp. ñoom. Barack Obama naan l' Afrique n' a pas besoin d' hommes forts mais d' institutions ñoom bu ñu demee ba xam loolu. bu ñu jàpp ni ñun xamuñu ko. si xam nañ ko. problème bi kay mooy ñoom Farba Ngom yooyu noonu nga xamante ni état da leen bett. Mhm. ko musul woon xalaat ci àddunaam dana nekk chef de quartier. Mhm. su xëyee nekk responsable politique bu am envergure boobu noonu day tiit. Mhm. du ko gëmee. day jàpp ni moom tey àddunaam fi la te nit nag ak teraangam. boo ko ko naree xañ mu teg ci bakkanam. ñoom seen teraanga du seen ñaq. seen teraanga lamine bu ñaaw la ak wax ju rëy. ak toppe moo leen may tey milliards yi na comme moo leen ko may. Mhm. wax moom far far folli rek la. Mhm. da ngay ni ko olof joxee da nga koy far faase ko mu effacé wu. waxa leen di teggi maintenant pour anticiper wax jooju noonu fekk leen fa effacé leen. Mhm. dañuy gaawantu wax gëmloo nit ñi. benn façon discours bu nga xamante nit ñi dañ leen di gën a toppaat. parce du mot la. mu mel ngay napp jën. yow doo bëgg nga def benn bruit. bu tax jën yi xam ni yow mii da leen di ootal. il faut toujours les berner ñuy calmer di nelaw nga leen di may ay cinq mille ki dix mhm. di leen may saaku ceeb bu weer deewee nga woote conseil municipal mhm. sa euh, añam xaw ma lan mhm. woote fa woote fa conseil municipal abrutir les gens waaw ku ñëw nga jox ko ku ñëw nga jox ko cinquante mille ku ku bind ci feuille feuille de présence nga jox ko vingt cinq mille cinquante mille mais tiens ñooñu ils vont se dire que ni Farba mii moo yor affaire bi. Mhm. parce que moom mi ngi te xamuñu ni. Mhm. cinquante mille yooyu noonu multiplié par mille personnes yooyu noonu. defaraloon mhm. na beneen école. wala defaroon na problème mu ndox mi nekk Fuuta. wala réglé na problème mu cheptel beeg bétail bi nekkoon foofu. mais duñ ko xalaatee noonu dans la perspective. ñoom dañuy xalaat dans le présent. comme dans le présent la xalaatee nag. ils vont toujours amener des discours à ce que yow boo naree xippi ñu def ñu takkal la ailleurs comme mhm. face mhm. doo tourner gauche doo tourner droite doo siggi mhm. mooy il faut toujours regarder ici la vie est là alors que la vie est là alors que la vie est